yoon boobu axe la boo xamante ni mën nañ ne deful sax cinquante kilomètres mais tey c'est tout un problème du monde pour nga mën a dugg foofu noonu waaye tamit programme bi nga xamante ni andi nañ ko comme ni ma ko waxee dina dimbale ndaw ñi bu ñu ne dimbale ndaw ñi ndaw ñi war nañ mën a am financement mais aussi war nañ mën a am li nga xamante ni moom mooy formation tey bu ñu gisee ay ndaw yoo xamante dañoo dëkk Kaffrine am bac ñu jox leen ay arrosoir ñuy arrosé vraiment daf tiital ñun en tant que ndaw ndax dañuy jàpp ne fii ak cinq fii ak an danañ am problème mu am su ay jeunes cadres yoo xamante ni bàyyi woon nañ xel ci ñoom ay jeunes cadres yoo xamante yaakaaroon nañ leen man ma yaakaar ne. au lieu que ñu leen di jox ay ay arrosoir ñuy dem di arroser dans le cadre de xëyu ndaw ñi ou dans le cadre de recru des recrutements du du du cadre de vie jàpp naa ne li gën mooy former leen encadrer leen yóbbu leen. dans des grande université ñu gën a jàng suba ñu ñëw doon les cadres mën a soutenir dëkk bi mën a yor dëkk bi incha allahu rabbi bu boobaa dana dalal suñu xel ku ne xam na ne ñu ñuy digal ne aussi Euh, dans le département de Kaffrine ou bien la région de Kaffrine est le poumon du bassin arachidier kon tey yaakaar naa bu ñu doon industrialiser région de Kaffrine bu ñu doon industrialiser le département de Kaffrine li ñu war njëkkee mooy xalaat ne Kaffrine mbay mi fi la ne Kaffrine lenn ci càmm gaa ngi fi kon tey war nañoo mën a def de sorte que wàllu mbay moom ñu fexe lépp lu ñuy bay ñu mën ko dundee nan lañ koy def fexe ba defal ñu fi ay jeunes yoo xamante ni ndaw ñooñu dinañ jàng doon ay cadre retourné di liggéey seen gox seen am-am seen koom-koom ñu koy delloo ci seen gox. loolu bokk na ci li tax ñu ne tey war nañoo mën a laaj baatu askan wi. à travers la coalition buntu bi ñu yóbbu ñu assemblée nationale ñu toogal fa ndaw buntu bi la ñuy jaar suqali Sénégal béykat bi yaana maar seeni suuf la kaas santé bi soxe na xale yi fajootuñu askan wi sonn nañu dundu gi dafa cher wóor na meer ak peer dañoo dëkkee géeju mer ci bunt bi la ñuy jaar suqali transport aéroport sunu or coffre-fort teggi toor ci bunt bi la ñuy jaar jële fi bojo bojo dindi fi seeni photo ba kenn du toxo ci bunt bi la ñuy jaar xeex ak ak yelleef ci bépp élève bu doon grève C'était la coalition Ubuntu Bi avec Modou dans la région de Kaffrine. Dakar et sa banlieue, ce sont les destinations de la coalition Ubuntu Bi demain. En seconde position, dans cette tranche du journal de la campagne, la coalition Art Sénégal qui a tenu des caravanes et visites de proximité dans la région de Sédhiou. mbokki Casamance te mooy suñu ñaareel bés ci biir région naturelle de Casamance jaar nañu Kolda jaar Sédhiou ñu fii ci région de Ziguinchor jigéen ñaa ngi ci marché yi jigéen ñaa ngi ci terrain bi ak góor yi waaye fépp fu ñu romb aussi askan waa ngi jooy xiif euh, ndax euh, démb gis nañu ay seen yu xaw a doy waar ci Carrefour Diaroumé koo xam ne wax na ba yaramam tàng ci engrais boo xam ne kenn mënu ko am fenn te moom béykat yor sa deux hectare munoo sax am benn pepp engrais ndax saako engrais mu ngi dem ci vingt cinq mille francs bu ñu bëggee nag nekk ci réew mu ni mel ba pare dee xiif dañuy war a xam ne du natt bu ñu yàlla teg la ci ñàkk xam ak euh, ñàkk mën ñu ñu jiite ñu jiite réew mi mbokki Sénégal euh, Casamance dong mu a dundal Sénégal wax nañ ko waxaat ko waaye Casamance tey jii nii ak l'ensemble du Sénégal dafa nekk dans une situation de détresse alimentaire atroce lu ko waral parce que ñi fi ji nekk élection rek mooy seen xalaat xalaatuñu ñi nar ñu ñëw ëllëg xalaatuñ la ñuy tabaxee Sénégal boo xam ne day yàgg te dëgër comme ni ñuy wax ci nasaraan les hommes politiques s'occupent de la prochaine élection les hommes d'État s'occupent des prochaines générations population de Ziguinchor ñi leen gërëm di leen sant ci teextu bu mucc ayib bi ngeen teextu suñu candidat tête de liste nationale de la coalition Aar Sénégal muy le président Thierno Alassane Sall. Aar Sénégal nag lu ko tax a jóg dinaa leen si wax pàcc rek tey jii doo xam ni moo yitteel waa Ziguinchor mooy lu ñu tuddee développement durable ak sécurité alimentaire ti suñu euh, contrat de législature bu nga xam ni moom la ñu tënk. te xam ne ci histoire Sénégal ci taarixu Sénégal kenn musu koy gis kenn musu koy dégg c'est la première fois euh, ne guléet Sénégal ñi dem ci élection ab coalition taxaw naan moom day euh, jaayante ak askan bi jaay programme wax leen loo xam ne buñ ko falee bu buñ ko yóbboo assemblée nationale incha allah lan la fas yéene doxalee su may wax nag ci mbirum euh, sécurité alimentaire ak développement durable ci Casamance nar na jaaxal ñëpp parce que Casamance lu yàlla may ci ndox meññ ko ci suuf su nangu ba Senghor tuddee ko le grenier du Sénégal ba pare tey ñu nekk ci ay tolof tolof yu nga xam ne kenn mënut ko expliquer. il y a une mauvaise volonté politique il n'y a pas de vision yoo xam ni moom la ñu mun a doxal pour Casamance Euh, rôle bu mu nar a Sénégal rôle bu mu nar a de l' de l'Ouest mu mun ko joué nangtoɗen ha so tawi min gañima ar sénégal gañima ɗo e commune de adiyan walla région he gandon wona kanko ceerno jooɗoto ko min fatkinde darame jooɗoto so mbiyama honorable moon to jeeya wiye ko commune de adiyan holto jeeya wi jeyata ko wuuro wiyetego bangala hana neeha mataw ko ɗon tan wawi hadde ɗum noon bandiraɓe mbeɗa caggal allah e nela ɗumen cheikhna amadou tidiane mbeɗa weeɗi on junngo mballodiren jurmodiren jurmoɗon kam mi yurmo on ballodiren ballodiren enen foof nafa e nafa ɓiɓɓe meɗen en tampi en lori ɓiɓɓe meɗen nani kaƴƴi haydara ɓe mbawa wadde ɓe janggui haaɓe jakki kayitaji mabɓe ala koɓe mbawi firtude on jii wuuro ngo no wayi ɓeɗo hande arɓe ɗo no gandi no nanir wuuro bangaga so naati bangaga mbiyata mata wona ɗo woni bangaga so naati commune de adiyane no gandi wona ko wona ɗo woni commune de kala ɗo jaaɗa e ladde nde ene wertiɗi kono ko liggete no wayno leydi so projet ji nannama hen sukaɓe ballama ma liggo minen ko ɗum jiiɗi ittude ha laaɓa basal iwa ɗo tampere iwa ɗo humam binnagu iwa ɗo de suke la sénégal parce que wola ɓurumla mo mañ métti ujukaji métti e suke leɓode jaw mban o magaja mane suke jaw il faut que o baja assemblé en mañje yaɓaje sembe assemblé en mañje pene juum mais jikel boro ka bari gouvernement e sénégal o wuja euh, wulji jum jum pour ja mam jingolen jingoru changement di département yolla par ce que jukaji ko métti département e biñona e kele kele mano san bare bare avancé o ni mana ñañene avancé problème saññaɓaɓen so jupo jupo euh, situation e ñombode safu ñombode salu ñombode raw popo karamben di duwa dis élection ene tan jaali ña donc sadi euh, 31 juillet mam jingolen jivote lycée yadi coalition ar sénégal Vous avez suivi les de Tierno Alassane Ousmane Diatta, Fatoumata Dramé et Aliou Sissé pour la coalition Art Sénégal. La coalition Art Sénégal qui sera demain à Diaobé, Vélingara et Kolda. Nous passons à la coalition Yewwi Askan Wi qui était en caravane à Guédiawaye, Rond-Point Casbi, Golfe Sud, Sam Notaire, Gounass, et Keur Massar. qui parle au nom de la coalition Yewwi Askan Wi. not alone tëralin bu bees yi aar suñuy constitution la paix civile au Sénégal Yewwi mooy sa mission Askan Wi injustice lay xeex ak élection Kër maa ngi leen di nuyu di jiitul di jiital ci nuyoo bi ki tax ma toog fii muy Serigne Moustapha Sy bu Moussa Chedine di ci teg ci nuyoo bi wala ma dëxëñ nuyoo bi teg ko ci président Ousmane Sonko mu joxal ma ko leader yëpp du ma yàgg ci déclaration bi li ma bëggoon wax yëpp pratiquement euh, président Ousmane Sonko wax na ko waaye mag mi nag daf ma wax benn mag maa ngi koy gërëm di ko sant muy Serigne Bara Ndiaye daf ma wax ne ma kilifa buy daanu ñëpp dinañu yëg ne moom day daanu waaye moom du ko yëg loolu moo dal Macky Sall adduna yëg nañu ne Macky Sall nguuram jeex na waaye moom ak ñi àndal yëguñu ko guy nag buy daanu ñi nga xam ne ñoo nekk ci runu guy ga mënuñu koo tee dañu war a daw ut fu ñu làqu Macky Sall ak gouvernement wam nañu xam ne lii askan bi wax à travers mobilisation mooy dóor dóoraat dañu leen dóor dóoraat leen te dóor bi dina ñett ndax bu 2024 jotee dinañ leen dóoraat ñu abal ñu gis ngeen euh, Sarafina dafa wax ne freedom is coming tomorrow booba apartheid moo amoon Afrique du Sud mais li ñuy dund moo gën a metti apartheid te nag nañu xam ne freedom is coming tomorrow mu ngi commencé tey ci législative yi législative yi nañu won régime Macky sàll ne leen jeexal nañu stabilité Sénégal Sénégal rek mooy dëkk bi nga xam ne am na pétrole am na zircon am na minerai jeunes yi di jël gaal di dem ci mbëkk mi loolu dafa ware a jeex Sénégal mooy dëkk boo xam ne am na pétrole am na zircon am na minerai sunu mag ñi di xiif ci biir kër yi jigéen ñi di yore dépense di wëndeelu ci marché yi te duñu gis lu ñu jënd wala bu ñu ko gisee duñu am luñ ko jëndee loolu dafa war a jeex le vent du changement a sonné mu ngi soufflé te ñun ñii ñoo ko mën a euh, upp bu ko defee bu ñu demee assemblée ñu indi assemblée boo xam ne uute na léegi ñu ngi ñaan nit ñi ñu ngi ñaan nañu dem voter massivement la coalition yeewi wàllu ci loolu rek lañ ko fi mën a génnee mënuñu ko génnee ci leneen lu dul ne moom ay forfaiture la xam ku nekk mu ngi gis ne ñu ngi vivre forfaiture yooyu kon nag nañu voté ji massivement defal ko cohabitation ci assemblée buñ fa jógee 2024 ñu pousse ko moroomam ñëw wasalaamualeykum wa rahmatullah Je vous fais à avant de poursuivre. Ce samedi juillet 2022, dans le cadre de la couverture officielle de la campagne électorale des législatives du 31 juillet prochain, de la RTS mise la disposition de la coalition Yewwi Wi a fait l'objet de propos discourtois et inélégants de la part de monsieur Ousmane Sonko, pourtant non candidat à ces joutes électorales. Monsieur Sonko a, sans ménagement, écarté le micro de la RTS, provoquant dans la foulée des huées de ses partisans. La RTS condamne avec fermeté cette attitude et exige du respect vis-à-vis -vis de son équipe qui ne fait qu'accomplir sa mission de service public. Pour le reste, la RTS prendra toutes ses dispositions pour ne plus faire l'objet d'attaques indignes de quelque responsable politique que ce soit. C'était donc le communiqué de la RTS à ce stade du journal de la campagne. Et pour son programme de demain, la coalition Yewwi Askan Wi fera donc des activités à Mbour, Fatick et Kaolack. Les serviteurs MPR, à présent, pour euh, boucler ce journal, ils étaient dans les régions de Kaolack et d'Urbel. Vous entendrez leur tête de liste nationale, Pape Djibril Fall. mbokk Sénégal ñoo ngi wéy di leen gërëm bu baax di leen sant ci ni ngeen ñuy gunge jamono bi nga xamante ni mooy jamonoy campagne électorale muy jamonoy waxtaan muy jamono diisoo muy jamono dékk euh, sunu sunu sunu leket wala sunu gafaka ngir ñu defal ñu ci lépp li nga xamante ni moom mooy jafe-jafe askan wi ngir seen yéene bi nga xamante ni ngeen ko eggale le 31 juillet jëmale ko ci li nga xamante ni moom mooy la coalition les serviteurs MPR ngir ñu tabbi fële ci pencum ndaw yi réew ma bu ñu fa demee mën a wax loo xamante ni dëppoo na lool ak li nga xam moom la askan wi di dund moo tax du ñu sonn benn yoon du ñu tàyyi benn yoon di jog di dox di wax jëm ci li nga xamante ni moom mooy élection yi incha allah le 31 juillet 2022 tey nag ñu tàmbalee suñu kàddu ci naqar di ay kàddu njaal di ko jëmale ci askanu Sénégal di ko jëmale ci képp koo xamante ni moo ngi yeewoo ci Sénégal wala mu nekk ci diaspora bi am yitte ci Sénégal ci jëmm jooju nga xamante ni moom mooy François bu bi nga xamante ni dafa wàcc liggéey ci ay conditions yoo xamante ni ba tey leerul loolu tamit liñ ci bëgg a wax rek mooy euh, li nga xamante ni moom mooy bakkanu doomu aadama dafa foor lool euh, loolu sax moo tax ñuy wax Euh, ne ci dine l'islam ne bu ñu rayee benn bakkan dafa mel ni rey nañ humanité yëpp doomu aadama dafa fort lool du ñu jóg mukk di fàttali li nga xamante ni moom mooy dignité humaine nii moo am solo loolu moo tax ñuy ñaan ñi nga xamante ni yëpp ñoo ko seq mbir mi na leer naññ ba wuutee ak yi nga xamante ni jot na fi jaar te ba tey xamuñu fan la fan la féete loolu tamit ñu ci interpeller li nga xamante ni moom mooy administration ñu fexe renouer le fil avec li nga xamante ni moom mooy confiance bi war a am seen diggante ak li nga xamante ni moom mooy peuple bi ndax te li ñu gis tey wala li ñu gis ci jamono yi lu doy la mooy dañoo dem ba

su ki nga xamante ni moom moo war a wax su waxee sax dootuñu ko mën a gëm muy rupture de confiance boo xamante ni moom mooy jur défiance malheureusement moom mooy jur yenn saa ay situation d'insurrection te loolu baaxul ci Sénégal li ñuy wax tout le temps Sénégal c'est une promesse de paix kon euh, ñoo ngi ñaan mbiru François Mancabou mu leer nañ leneen li nag ñu tabbi tey ci dëkk bi nga xamante ni bu ama am solo la muy Diourbel ginnaaw bi nga xamante ni jaar nañ fi nga xamante ni moom mooy Gossas Diourbel ak Gossas seen caractéristique mooy yaatuwaay bi certes waaye caractéristique bi li nga xam moom moo koy mandargal mooy désert bi nga xam fekk nañ ko fi ci wàllu industrie mooy désert bi nga xamante ni fekk nañ ko fi ci wàllu euh, wàllu mbay maanaam dëkk la yoo xamante ni potentialité yi maanaam li fi mën a meññee potentiel bi li ñu war a war a am ci wàllu mbay war koo am ci wàllu càmm kenn xamul ni mu toll waaye tey ndawi Jurbel daanaka li fi bokk na ci dëkk yi nga xamante ni li ñuy am ci ay candidat maanaam ñoo xam dañuy jóg di mbëkk ci géej gi wala ñuy jaar ci désert bi candidat à l'immigration kenn xamul ni mu toll te li ko waral mooy industrie fi war am ngir ndaw ñi am lu ñu téye bu ñu jàngee ba noppi loolu moo fi amul wala bu ñu jàngee ci ba pare loolu tamit daf fi amul ñun nag coalition les serviteurs MPR dundal yaakaaru ndaw ñi moom moo ñu yëkkati loolu moo tax loolu di nga xamante ni moom mooy Jurbel ak fii nga xamante ni moom la ñu jógee ñun fas nañ ko yéenee àggee fële nga xamante ni moom mooy assemblée nationale leneen li mooy désert médical bi ci wàllu santé ay jéego yu mag mag lañ ci war a def leneen li mooy le potentiel touristique culturel tourisme religieux bi nga xamante ni am na fi ndax ku wax Jurbel wax Cheikh Ahmadou Bamba ku jox Jurbel wax ci ëtt bu sell bi ñu nekk muy ëttu maam Thierno Kandji ku wax Jurbel wax maam Cheikh Ibrahima fal ku wax Jurbel wax maam Cheikh Anta euh, borom Daaru Salaam yooyu yëpp tey ji ay mbir la yoo xamante ni tey ku wax Jurbel kilifa goo ni mooy Serigne Mor Mbaye Cissé ak ñeneen ak ñeneen ñi nga xamante ni ñoom tey ji xàll nañ yoon wu am solo ci wàllu xam-xam ci wàllu bibliographie li ñu produire kenn xamul ni mu toll waaye surtout ci wàllu formation des jeunes maanaam wàllu jàng ak jàngale te loolu tey ba tey ji sunu nguur gi wala sunu autorités yi mënuñu koo euh, exploiter ba ba ba jëriñoo ko lii ma fi wax ak li ma njëkk wax muy François Mancabou dañ cee war a dégg assemblée nationale mu yëy yàbbi ci waaye yi fi romboon assemblée nationale dégguñu ko fi keroog fële ca de denis match ba fa amoon di final Liverpool gis ngeen ba mu amee ay échauffourée kii di ministre de l' bu France waa assemblée nationale déglu nañ ko ay waxtu yu baree baree bari waaye ndeysaan sunu réew bu fi dara xewee kenn du ci dégg assemblée nationale mu addu ci. loolu moo tax ñun la coalition les serviteurs MPR bëgg nañoo delloo assemblée nationale ca la taxoon mu jóg dëgg mooy mbir yi bu jógee ñu dem toog jàkkaarloog ñoom wax leen ay kaddu dëgg wax leen ay kaddu yiw wax leen ay kaddu ngor ak fulla ak fayda ba nga xamante ni liñ ci war a def dinañ ko ci def loolu askanu Sénégal da koy jooy ni ko Serigne Fallou Mbacké doon wax rek. kilifa bu ne war naa moytu sa njaboot saa bu ñu amee soxla rek seen xel jël la assemblée nationale feebar boobu moo ko dal ñun dinañ ko delloowaat fi nga xamante ni foofu la waroon a nekk foofu mosu fa jóge muy amal yitte ñi nga xamante ni moom mooy askanu Sénégal ñu ngi leen di gërëm di leen sant di leen jox dig daje suba incha allah ci beneen barab ci biir Sénégal ngir ñu waxtaane li nga xamante ni moom mooy réew mi nga xamante ni faaw ñu bokk ko pencoo ko te duñu ko pàccoo jërë ngeen jëf. C'était donc les serviteurs MPR qui organisent demain des caravanes et visites de proximité dans l'axe Saint-Louis, Richard Toll, Dagana, Podor et Ndiouma.